alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant bur bu subhaanahu wa di leen baal aq ci sàkku ci yéen ngeen baal ñu di ñaan borom subhaanahu wa taala mu jéggal ñu ñun ñëpp bokk yi ñoo ngi leen ñu ndokkeel ci weeru màgg wu tedd wi muy weeru koor bokk ci weer yi gën a màgg ci weer yi di weer woo xam ne borom bi subhaanahu wa wax na ne dama ko farataal ci yéen ni ma ko farataaleen ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon waaye di gan goo xam ne nin ko waxoon rek yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi moo tax sunu ba tey mi ngi jëm ci dogal aji woor wala joxe aw ñam ci koo xam ne dafa woor nga yëkkati aw ñam jox ko ko ngir mu ndogoo ko walla la nga xam ne moom la sa wërsëg toll xam ngeen ne weeru koor weeru njëkkante lu baax la weeru ndamonte tamit jëm ci lu baax la weer la woo xam ne ku ko yàlla man loo nga am loo doge am lu kaneen mën a doge nga dogal ko ca loolu yiwu bari la woo xam ne kenn xamu num toll ca dana waral nit ki nga xam ne danga nga yëkkati sa alal jox ko wala nga yëkkati aw ñam jox ko dana waral ak cofeel sa diggante ak moom cofeel goo xam ne cofeel gu dëgër lay doon loolu nag ñun ñëpp buñ delloo ci xadis yonte bi sallallahu alayhi dafa wax képp koo xam ne danga dogal aji yàlla dana la fay yool bu toll ne ko bi nga xam ne moom la moom la ko jox ca du wàññi yow dara ci sab yool kon yàlla dana la jox yool boo xam ne yool bu màgg lay doon ca du wàññi dara yow ci sab yool kon bokk yi joxe aw ñam bokk na ci jukkey gaañu baax yi fi jiitu woon bu dolle ci ci alquran ci suratul insaan ba suñ borom di wax naan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi allah la nuridu minkum jazaan wala shakura ñett ñooñu nga xam ne kun tëj la woon ak ab jirim ak ab miskin waaye suñu borom subhanahu wa dogal Seydina Ali la suma jumut ñu defaroon aw ñam wu sell wu màgg bay waaj a jëfandiku ab jirim dikk ne laara ñu jox ko ñam wa ca ëllëg sa ñu def ko ab prisonnier ñu dikk na laa biraaral ñu jox ko ca ëllëg sa ñu def ko ab miskin ñëw na laara biraaral ñu jox ko sun borom wàcce aaya ji ne wa yut'imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira waaye nag innama nut'imukum li wajhillaahi jox gi ma leen ko jox ak leel gi leen ko jox gi ma ko leel jëmmi kenn taxul ku du jëmmi borom subhanahu wa taala innama nut'imukum li wajhillaahi laa nuridu minkum jazaan wala shakura bëgguma ngeen sant ma bëgguma ngeen na ma jaajëf bëgguma ngeen a dara yàlla moo tax may jëf-jëf ji yàlla ma gis na ko kon moo waral li ci lépp lu ci waay ji def wala nga koy defal doomu aadama wala loo ko mën a jox ci weer wii ak loo ca mën a def jàppal na rek yàlla yàllaa tax nga di ko def bu ca sàkk kenn ku du pay borom bi subhanahu wa taala bokk yi xadis Abdoulaye Abdoulaye bi ibnu mii mu ne yonent bi saa salaam loolu dama sa dikk ci moom ne ko ban lislaam moo gën ci lislaam yi mu ne ko joxe aw ñam ak di nuyu koo xam ak koo xamut di joxe aw ñam di togg di joxe ak di nuyu koo xam ak koo xamut moo waral barab yi nga xam ne dañ fi fiy dundale weeru koor jumaa yi jàkka yi ak yeneen barab yi lan fay laaj doomu aadama di ko fa indi ngir di ko jox ña fa nekk lu ci waaye mën na ko ci def lu ca waay man na ko ca def ca bu imaam ba tax nga di ko def bu sëriñ ba tax nga di ko def bu penc ma tax ko def na ko def ngir jëmmi yàlla ja na ko def ngir jëmmi yàlla ja loolu yi kon yonent bi sansa bi ko laajee ban islaam mu gën ci lislaam yi dana di joxe aw ñam ak di nuyu koo xam ak koo xamut ca xam ngeen ne joxe ñam moom li ci nekk ci ay ngëneel kenn xamunum toll ginnaaw waajibaat yi ak faraayid yi borom xam ne dañuy wax ne jaamu yàlla gi gën a màgg ci jaamu yàlla yi ginnaaw farata yeeg waajibaat yépp mooy di joxe aw ñam bokk yi buñ xoolee xisab sahaabi yi bi nga xam ne ci waa lansaar la bokkoon benn bis dafa am gan gu jógee ci bokk ci muhaajiru ne ñëw ci yonte bi sallallahu taala alihi wa sallam ba sallallahu taala alayhi wa sallam mbooloo mépp ngi toog mu ne ana kan moo may ganale sama gan gi benn waay jékki-jékki jóg na ko man ca xamul kër ga sax daraa nga fa am déet ndax bàyyi na fa soxnaam bàyyi na fa doom ya mu daal di ànd ak waaja ñëw ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa fekk fa soxnaam na ko hada dayf fu sallallahu alayhi wa sallam kii ganuk rasulullahi sallallahu alayhi la na ko kër gi lan moo fi nekk mu ne ko kër gi da dara nekku fii lu dut lu ñaari suñ ñaari doom yi war a jëfandikoo mu ne ko fexeel ba xale yi nelaw bu togg gi ñoree nga yekk togg gi ci barab bu ci ndab lu sell nga taajal ko gan gi fay làmp bi nga ñëw jege ko ma toog ak yow ak moom ñuy waxtaan waaye bu kenn dugal sa loxo nan bàyyi gan gi lekk rek nga xam ne noonu la soxna si def daa yekk ñam wa nelawal xale ya ñëw fay làmp bi taaj ñam wi ñu bokk toog gan gi jàpp na ñoom ñi ngi xéewlu fekk gan gi rek ay xéewlu ba gan gi xéewloo ba ba noppi ñu jël ndab la yóbbu ñoom ñaar ñu dem tër yi di nelaw ca guddi ga suñ borom yooni Seydina Jibril mu indi aaya wa yusuruuna ala anfusihim loolu suñu borom subhanahu taala wax wax ci alquran ne wa yusruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa daan na ko cay ñoo xam ne danoo xiif mar lekkuñu naanuñu seeni doom xiif mar lekkuñu naanuñu ñu jël yàlla gënal ko seen bopp ba tax ñu jëfal yàlla lii mooy isaar nga xam ne yow dangay ngay def da def li ngay def mooy danga koy def ngir jëmmi yàlla koroog la aaya boobu wàcc ci saxaabi boobu kon képp koo xam ne yàlla dogal ne nga am lu ëpp sa dépasse tey den nag mbokkum jullit mu ko amut loo ko ca mën a jàppale jàppale ko ca képp koo xam ne am nga lu ëpp sa tey dendal mbokkum jullit mu ko amut loo ci jàpp loo ko ci mën a jàppale jàppale ko ca loolu mooy jaamu yàlla gi xam ne bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg bokk yi dogal aji woor yool bi ci nekk kenn xamul nu mu toll yonent bi saa salaam ku tabele woon waaye ak tabam weeru koor la daan feeñ weeru koor la ëpp ci ak tabam gën a xam ne tabug rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax sayxul islam ibnu taymiya nee na salafu saali fi ji jiitu jiitu woon daanan xër ci joxe aw ñam ba mujj yàlla doona dem ba jàpp ne joxe aw ñam dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a baax ci jaamu yàlla yi ñu ci bari daaw ñu dog ñoom dong laata ñuy dog faaw dañuy wut kun bokkal ñuy sog di mën a dogu waaye bala ngaa mën a dog dog rek dangay ngay tëju ci néeg kenn bañ laa gis nga xéewlu ba génn ñoom daaw ñu def loolu bu nu amul kenn kun bokkal ñori danañ nu képp kun kun ko mën a bokkal pour séq kook moom loolu mooy ak jullit loolu mooy ak jullit Abdullah ibn Omar daana def loolu Daawud at-Taa'i daana def noonu Malik bin Dinar daana def noonu Ahmad ibn Hanbal daana def loolu daana def bala ñoo dog rek faaw dañuy wuti ku ko xam ne dañuy leen di dañuy bokk ak ñoom li ñuy dogu Ibnu Omar moom bokkoon na ci ay jukkaam mooy su dog masaana jot day dem xooli ab yatim ku baayam faatu wala miskin dikk bokk moom dog kon na bàyyi xel ne joxe aw ñam wala dogal ku woor bokk yi lu am solo la képp ku ko man dee ko def rawatina ci weeru koor wi ñu nekk jaamu yàlla la goo xam ne bokk yi jaamu yàlla gu bëri njariñ la jaamu yàlla guy tax nit ñi sopp la la jaamu yàlla guy tax nit ñi bëgg la la waaye jaamu yàlla giy taxit nit ki bu ëllëgee mu dugg àjjana yonent bi sansama nee na du ngeen dugg àjjana mukk lu dul dangeen a gëm yàlla te du ngeen gëm yàlla mukk lu dul da ngeen bëggante bëggante soppante wóolante ca joxe aw ñam dana tax nit ñi di bëggante di soppante wala taxaas wala ta baaxudin wala tahaasudin wala tadaaburin xatta nasira al muslimina xaashain wa muminina muxlisina saalihin tabaaqut bu amut tahaasul amut dégg nga yooyu bu dañee ci nit ki rek ca la nañ mujj doon xatta nasira al muminina muxlisina saalihin a joñu ca loolu nag ginnaaw joxaw ñam dana tax nit ki cofeel am bëggante am tabaaxul dañ tahaasul am yooye kon ibaada googu ibaada gu baax la kon képp koo xam ne mën nga ko bokk yi del joxe aw ñam fi ni mujjante la mooy Hammad bun Suleymaan moom weeru koor su ma saana jot guddi gu jot juróom fukki nit lay do lay lay jox lay jox ndogu guddi bu waxtu dogu jotee dana dogal juróom fukki nit day leen jox ñu dogu waaye bu demee ba kori jox ba kori jot juróom fukki nit ñu muy dogal kenn ku ci nekk dana la xottil am bu nga sol boo bokk jëf ju baax a kon jumaa yeeg jàkka yi ndogu yan fa indi ngir ña fa nekk ña ña koy joxe di ko fa indi nan xam ne pertuñu nan xam ne tamit la ñuy def jëf-jëfi lislaam la nan xam ne tamit yàlla képp moo tax ñu ko def nan xam ne tamit jaamu yàlla gu réy la gu mag la kon képp koo xam ne ñi ngi lay laaj lu jëm ci ndogu yu jëm ci jumaa wala jàkka wala fu mu mën a doon loo ca mën na ko def ngir jëmmi borom bi subhanahu wa taala loolu lu am solo la Euh, am ci kenn ci saxaaba yi wax ne woo fukki nit jox leen aw ñam moo gën ci moo ma gënal man ma goreel fukki jaam woo fukki nit jox leen aw ñam ñu lekk ba suur moo ma gënal man ma jox fukki jaam aw ñam ma ma goreel fukki jaam ci du Ismaayila kon nag yaa noonu yàlla dafa dégg ak topp yaa noonu yàlla may luñ joxe ca lépp loo xam ne ñi ngi ko ci ñaan ci weeru yàlla na ko yàlla nangu képp koo xam ne yàlla dogal na ne amoo loo dogee yàlla na yàlla jàppandal lépp ba nga am ko rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tawil lana umrana sahhil lana badana wa hab lana rushda wa tawfiqa ya allah wa dammir kulla a'da'in tudri bina qabla al-wusul lana ya allah ya allah وكن معيسا لنا من شر حاسد مع شر فم وشر عين يا الله يغفر الله لنا ولكم ولشار المسلمين امين